xamante ne si sumboon na ko ay ñooñam ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi mbokk mi. salaam États-Unis laay wootee tur bi dama koy leb mais looy waxtaanee te ngeen ngeen dem ba Touré. ngañ dem ba Touré mi nga xamante ni mi ñuy xibaar kenn dafa nekk en exil fële ca Mali ngir wéyal ab xeexam. ok Mali dàq Sénégal Mali kenn du la tëj. Sénégal na soo waxee sa ab yi ñu tëj la soo waxee ne Macky Sall rafet na ñu tëj la soo waxee ne mhm. Macky Sall lii ñu tëj la looloo xew te Sénégal Sénégal vous avez un gouvernement de bandits li ñuy wax rek gouvernement Macky Sall bi c'était bandit bandi na su yoree dëkk man je pense pas que dëkk bi dina avancer dëkk bi day gën di dem daaw xale yaa ngi dem ti géej bi parce que ñu toogee foofu ñu tëj leen kaso il faut ngeen dem ci route problème bi Macky Sall c'est un bandit te Macky Sall fu mu nekk nii il veut il un chaos par la reporter élection xaw ma lu tax xaw ma lu famille am def ba waa ji bëgg a jóge ci nguur gi c'est grave li xew nii c'est grave c'est tragédie Sénégal c'est un failed state failed continent loolu xew Sénégal léegi ma wax waxu Sonko Sonko maa ngi koy ñaanal man tey dama toog yeewu ci àjjuma bi di naan sama café ma foog ne yàlla dafa meree Afrique man loolu laa gëm hmm. parce mënuñu nekk soixante-deux ans ci am suñu indépendance amuñu sa indépendance parce que euh, tubaab bi toujours ñooñu ñooñuy ci ñooñu contrôler mhm. tubaab bi ñooy teg président bu leen arrangé pour mun a jël suñu ressources yi yóbbu ko seen dëkk euh, dëkk da koy tabax fam fam li américain di wax ba baaram opp da ngay commencé ci suuf yéeg ci kaw dëkk kenn du ko tabax ci kaw wàcc ci suuf loolu mënul nekk donc nag moom man grève de la faim bi li ma wax jaar man dama ci ànd na na continuer Macky Sall su dee loxoom day day day kii day sa main serait deur yi li américain di wax deur yi haine il aurait sang dans sa main il aurait le sang de Sonko dans la famille de Macky Sall ils vont payer nag pour ça et leur génération va payer pour ça man loo la gëm Sénégal nag yeewu leen sol leen seen yére yu rafet suba ngeen génn taxaw ci tali bi xanaa Macky Sall doful pour rey leen ah marche man loolu laa gëm yàlla na muy yónnee jàmm Sénégal yal na ko fa yàlla yónnee te yal na fa yàlla génne Macky Sall si barke Seydina Mohamed Macky Sall il est tragédie du Sénégal tragédie ngeen dem ba Touré nag je t'encourage li nga def mooy dëgg doo toog ñu saraxe la dugal la kaso on va et puis ñu bind si suñu post Facebook free ngeen dem ba loolu mënul am na dem Mali fight combat bi Mali ñi ngi jéem a moomaat seen bopp ñun Sénégal yal na ñu doon next ok bye. merci jaajëfal ko bu baax a baax kàddu yem na solo mu ngeen def ni moom ngeen caax ci numéro yooyu affiché ci bas d'écran bi ngeen wax li nga xamante ni moom mooy seen xalaat ak ban jàngat euh, ngeen am ci tolluwaayu réew mi euh, ñuy waxtaanee nag euh, ponk bi njëkk bokk ci ki nga xamante ni si moom mooy Ngagne Demba Touré mu ñuy xibaar kan ni moom dafa nekk en exil jamono jile fële na la ca Mali moom de mu ngi sax di remercier li nga xamante ni moom mooy état du Mali ci li mu ko permettre mu daal di am séjour boobu noonu fële ca territoire malien boobu Ngagne Demba Touré nag mu ngi wax ni que moom dafa nekk en exil foofu noonu ci xibaar euh, moom mu ne dafa nekk en exil ngir mën a continuer li nga xamante ne si moom mooy xeex bi nga xamante ne si euh, sumboon na ko moom Ngagne Demba Touré beneen ponk bi nekk ki nga xamante ni moom mooy euh, Ousmane Tunkara moom mi nga xamante ni si moom état bu États-Unis police ba daf koy daal di wër jamono jilee ngir rek moom daf ko jàpp ni dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni si wala sax jiite woon ci nga xamante ni ñoom ñoo doon def saccage boobu noonu lee nga xamante si moo lañ doon doon def fële ca consulat bu Sénégal ba nekk fële ne la ca États-Unis moo tax euh, moom doomu Sénégal boobu noonu nekk ca États-Unis police ba daf koy euh, wër euh, jamono jile beneen ponk bi nekk li nga xamante ni si moom mooy mbirum Ousmane Sonko mi nga xamante ni si jamono jile bu buñ sukkandikoo ci ay njoñam lii di état de santé am dafa daal di critique lool ginnaaw bi nga xamante ni si sumb na lii di ab grève de la faim boo xamante ni si jamono ji ëpp na ñaari ay bés ñu jël mbokk mi asalaamaaleykum waalekum salaam wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. sëñ bi na tudd ak maa ngi lay ziare. bàyyi nañ ci jàmm. Mhm, ñu ngi si jàmm bu baax a baax. waaw man dama am dama am ñaari ñaari ñaari mbir yi may bëgg a wax. benn bi mbiru mhm. Ousmane Tounkara. Mhm. benn bi gaal googu ñu ni dafa téere kafir. dafa am dama woote woon ba gaal ba wax xam nga dafa am benn bis espagnol yi def benn journal man maa ngi fii Allemagne espagnol yi dañ def benn journal. Mhm. Euh, bu mel ni que ni daal di nekk ci bu fekkee mën nga daal di duggaat continuer li nga xamante ne si moom nga doon euh, expliquer noonu asalaamaaleykum mbokk mi. waaw waaw allo. oui waaw man na maa dellu si dafa d'accord. Mhm. waaw damay expliquer damay expliquer. Mhm. dafa am benn bis espagnol yi def seen journal man maa ngi fii Allemagne espagnol def journal ni ñoom dafa am ñaari gaal yu dugg seen seen géej ñaari seen radar yi gis ñaari gaal mais benn gaal gi teer na mais benn gaal gi kenn gisu ko mhm. te gaal googu ñu kenn gisul li mu yab ci nit xaw naa jege cent personnes mhm. Aïssata Tall Sall la génne mu ni loolu amul amul benn gaal gu réer yéen a ngi koy fàttaliku waaw gaal googu noonu moom moo teer Cap noonu gis nga jamono yooyu bu fekkoonte ni Sénégal jëloon nañ seen hélicoptère bi ñu dem seeti gaal bi xar yooyu duñu dee mm-hmm. bu fekkoonte ni ñoom Sénégal jëloon nañ seen bi marine dem seeti gaal googu Sénégal duñu dee mm-hmm. mais dañ leen bàyyi dañ leen négliger ay satutal sàll ci boppam moo génne wax ay waxam te lu mu doon wax yu dara du ci dëkk tey mu ngi nii affaire yaa ngi nii affaire u Tunkara bi nag gis nga seen journal yooyu nee leen wax nee leen wax seen journal yooyu nekkatuñu ci mille neuf cent soixante ñu ngi ci vingt et unième siècle deux mille vingt trois mhm. adduna bi kenn mënatu la ndax kenn ku yaakaar ni dañ lay fay xaalis ngay bind lu la neex yow sa bopp la mhm. Europe gii ñu nekk ak Amérique ñoo yem ci ay loi gis nga amerique mi bu seeti ay nitam te te loolu buñ koy def xoolal bu ñuy seeti ay nit di fay kooku ku rey nit la wala ku ñuy ku kuy jaay drogue te ci ku rey nit la ëppi waa léegi dama leen di laaj ban état ban état ban état moo moo moo mooy génne xaalis di fay ay nit pour ñu seet te état boobu génn ko ci ñu publier ko ci journal officiel bu nekk Amérique. Mhm. xam nga yéen Sénégal Sénégal seen gouvernement yi ak seen journaliste yi ñenn journaliste yi du ñëpp nag dañ leen di tofloo ngeen bëgg a tofloo yéen yëpp yéen ngeen bëgg a nangu dof kooku adduna bi doxeetul noonu ñu xoolal ñi jàngul ñi sax xam nañ ne adduna doxe léegi yéen fan ngeen mës a gisee journal yow yow ab état buy wër ay nit binduñu ko ci journal officiel bi ñu koy bindee ci journal boo xamante ne mu ngi ci beneen réew boo xamante ni mais mais mais dafa dafa yomb quoi affaire dafa flagrant trop dafa dafa man dara affaire bi man xaw ma Séné journaliste Sénégal yi lan la man trop dafa may jaaxal lii lan moo ko fi jar. Mm-hmm. lan moo ko fi jar laa xamul xaalisu àdduna moo ko fi jar kay kay kay bind yi xam ne wóor na lii lépp dara du ci dëkk. Mm-hmm. léegi journal yi nag ñoom ñu gëm ko tey di ko revue de presse kenn ku ne di ngeen legal bu fekkoon tey ni dañ koy wër démb du def live. dem mu def na live rek. Mhm. keneen ki tuut sant kan noonu mu ngi Amérique bu fekkee dañ koy war a américain yi xam nañ adresse am xam nañ mu dëkk gis nga wax bu dofee noppi kay ko war a wér Sénégalais yeewu leen di laay war a suuri jot na da ngeen bàyyi journal yi journal yi nga xamante ne nii nguur leen di fay ji bind lu leen neex yàlla na leen yàlla defal jàmm merci jërëjëf ci euh, leeral yooyu am na solo mun ngeen jëf ni moom ngeen jaax ci numéro yooyu affiché ci baax d'écran bi euh, ngeen wax euh, seen xalaat ak ban jàngat ngeen am ci tolluwaayu réew mi ba tax tey ñu xool li gën a fës ci actualité bi andi leen ko bokk ci li nga xamante ni si moom mooy bu sukkandikoo ci publication moom Ngagne Demba Touré mu ñuy xamal que ni dafa nekk en exil fële na le ca réewu Mali moom Ngagne Demba Touré ñu jël mbokk mi asalaamaaleykum. baal ma maa woote woon léegi di wax man dama fàtte wax ci affaire Tunkara bi xam nga man États-Unis fii laa nekk. fii laa dëkk j'ai fait trente ans j'ai fait trente ans États-Unis je la nationalité américaine man. Mm-hmm. naa la wax dara fii yéen seen journaliste yi ay dóorkat nañ fii Tunkara démb def na live FBI suñ la defee ci most wanted doo fanaan sa kër fii dañu am loi. mais yéen Sénégal da ngeen di toog yëpp ci journal ngeen koy bind naan dañuy wax mandat d'arrêt international ñun yooyu marché wu fii li gisoo li dal la euh, comme on dit euh, euh, avocat français boobu du loolu nañ defoon yooyu marché wu ñun affaire soo koy def dañ koy teg ci loi ñun président fii du décider ku ñuy jàpp ku ñuy bàyyi ñun amul loolu Tunkara kenn seetu ko kenn waru ko yooyu yëpp ay dóor la man na Sénégal soo bàyyee woykat am chaîne télévision nii rek la journaliste bi mun a dem Youssou Ndour mooy yàq média Sénégal moo war woon am télé war woon am yooy yëpp ma loolu laa gëm Tunkara na kenn seetu ko Sénégal wake up leen ñun fii États-Unis dañuy am loi Tunkara même su amulee kayit on le protège loolu moo xew ci suñu dëkk bi dëkku la le l'Amérique ils ils ils ont une valeur l'être humain. Sénégal, mm -hmm. vous êtes des animaux. C'est comme ça votre gouvernement veut prendre avec vos journalistes. il a vendu sa conscience à tout. cet homme-là, man dama ko bëggoon mais tey su ma ko gisee sax damay bëgg ko wettu. C'est un traître, c'est un lâche. Mhm. merci jaajëfal ko bu baax a baax man ngeen def ni moom ngeen jaax ci numéro boobu affiché ci baax d'écran bi ngeen daal di wax seen xalaata ci tolluwaayu réew mi tey nag ñuy waxtaanee eh, ponk bi nga xamante ne si bokk na bu ci publication ki nga xamante ne si moom mooy eh, kii di Ngagne Demba bokk ci eh, parti boobu di PASTEF moom mu ñuy xibaar kat ni dafa nekk en exil fële ca réewu Mali ngir rek mën a gën a wéyal foofu noonu ab xeexam moom Ngagne Demba loolu la ñu xamal beneen ponk bi bokk ci bi ñu sukkandikoo ci journal bii di Les Échos moom moo ñu xamal que ni Euh, ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Tunkara euh, euh, état état bu États-Unis mu ñu waxee sax que ni police ba moo nekk jamono ji di ko wër ndax dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni si dañ doon saccagé li nga xamante ni si moom mooy consulat bu Sénégal bi nekk fële ci États-Unis les échos moo ñu xamal boobu le xibaar salaamaaleykum mbokk mi. salaam. ça va ñu ngi fi alhamdulilah. waaw euh, foofa la 2A yaa ngi direct 2A TV. waaw ah, asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar. maa ngi leen di nuyu. waaw euh, damay jëkk participer ci affaire Tunkara bi. Mhm. laay jëkk wax. man vraiment vraiment ñun sénégalais yi war nañu sax am gàcce parce que li tax ñu war a am gàcce mooy journal euh, euh, journaliste sénégalais yi ñoom vraiment lii dafa ñaaw parce que dañuy wër tunkara dañuy wër tunkara pays bu dal ni États-Unis dëkk bu doy ni États-Unis ñuy wër tunkara amuñu kan moo ñu ko war a mën a wax ku dul observateur kan moo ñu ko war a wax ku dul TFM ñun ñoom li ñuy def Sénégal di nax nit ñi. di joxe ay ay ay xibaar yu wérul nañu xam ne loolu Sénégal rek la yem te li tax ñu am loolu mooy ñoom président bi bi fi nekk ñoom moom lañ ci nekk looloo tax ñoom ñoom ñu am loolu li femme boobu wax dëgg la Youssou Ndour ñëpp a ko bëggoon ñëpp a ko fonkoon bi muy am tele ñëpp ci kontaanoon mais tey ñoom yóbbu nañ média foo xam ne ñaaw na ñaaw boo xam ne kenn xamul loolu lan lay niroon may wax ne Bouba Ndour mënul nekk nit koo xam ne à chaque fois mu ngi toog ci télé bi di wax dëgg ba pare euh, observateur di bind lu ko neex te moom amul droit taxaw wax ak ñoom man loolu comprendre ma ko loolu daal jaaxal na ma lool may wax ci kaawu Ngagne Demba Touré ma kontaan ci lool parce que jeune la jeune la boo xam ne macha allah yàlla may na ko xel trop trop trop may ko dal mu jàng-jàng ba toll fi mu toll di liggéey mhm. bokk Pastef tax ñu bëgg sacrifier viam bokk Pastef tax ñu bëgg ko tëj ci kaso bi fàtte leen fi comme ni ñu def ñoom Bassirou Diomaye Faye ak ñeneen ak ñeneen ay intellectuel yoo xam ne ay xale yoo xam ne tuxuñu ñu sàcc ñu fenuñu dañoo jàng liggéey di jariñ seen réew nga jël leen tëj leen ci ci kaso yi pour affaire politique man je suis très d' accord si li Ngagne Demba Touré def képp ku ko mën a def war nga koo def Sénégal fi mu nekk nii dafa war a bëri ay exil politique ñoo xam ne politique moo war a tax ñëpp génn. Mhm. ba àdduna bépp xam li xew Sénégal. parce que li xew Sénégal ñaaw na lool ba fu ñaaw yem foo ko natt rek weesu na ko gouvernement bu jël population di leen malmené di leen torturé di leen toroxal bu leen leeree na loolu mënuñu ci rëcc rek. mësuñoo gis koo xam ne da nga jël sa population ak ni population tol nga bëgg a xeex ak ñoom nax lan yaa yor armée yaa yor gendarmerie yaa yor police mais ñooñu ay sénégalais lañ te police gendarmerie ak armée war nañoo xoolaat seen bopp war nañoo xoolaat Afrique taxawaay bi bu bees bi Afrique am taxawaay bu am solo bi Afrique am ci monde entier léegi taxaw bëgg bañ. mais nit ku ñuul dafa war a commencer bañ dëgg-dëgg bañ sëñ bi man maa ngi fi extérieur mais bi ma fiy doog a ñëw aw xaw ma woon ampleur taxaw rek bañ si tubaab bi daan naa bañ parce que bañkat laa mais sama bañ xam nga kañ la feeñ dëgg-dëgg wallahi bi Ousmane Sonko commencé ma di ko déglu léegi je refuse tout dootuma nangu benn nit ku weex jël bépp baaraama teg ko sama kaw. parce que damay léegi damay xool sama dignité ni nit laa ñoom tamit ay nit lañu il est temps que ne ñun nit ñu ñuul ñi ñu ñu ñu relever défi li fi maam yi bàyyi woon ñu xeex leen jàppaleen def leen ay jàmm ba yàq suñu réew ñu defaraat ko. parce que mhm. léegi jamono dafa changé technologie bi euh, avancé na àdduna bi léegi ñëpp mën nañ jokkalante kon li nga xam ne moo amoon Afrique bu njëkk ñuy def leen ay esclaves mais il est temps que mu jeex. léegi jeunes yëpp a jàng ku jàngul tamit muus nga ndax technologie bi kon ñëpp a war a jóg bañ bañ taxawal suñu réew. Mhm. Euh, maa ngi bëgg a mais dafa am fu may daane la fu ma amal importance mooy damay la wax ne euh, juge bi ñuy wax Mamadou Seck. Mhm. xaw ma ko de mais tellement que damay dégg turam ba dama yéemu may laajte kooku kooku lan moo ko dal Mamadou Seck. du Seck li mu mandat dépôt bëri na Mamadou Seck bu dee yaa ngi may dégg xoolal xoolal ne xamal ne di nga dee xamal ne am nga njaboot xamal ne yaa ngi sacrifier njabootu jàmbur yoo xam ne seeni waajur sonn nañ ci ñoom waaye yow juge Mamadou Seck kuñ la indil rek nga mandat dépôt ko waaye na la leer ne yàlla dina la masa mandat dépôt na la leer ne yaa ngi war a bàyyi sa njaboot bàyyi say sët bàyyi bàyyi xeet gi nga war a jur yow ñuy dund ci Sénégal ak li nga fi def résultat bu bon bi nga def fii si dëkk bi mandat de dépôt yu bon yu metti yii yow ma Mamadou lu luñ la indi rek nga exécuté ay waaye xamal ne benn juge moo am mooy yàlla subhanahu wa te bés dina ñëw yow yàlla teg la mandat de dépôt la jërë ngeen jëf. jërëjëf jaajëfal ko bu baax kàddu yi am na solo euh, nuñ koy waxee rek. Euh, tey ñu waxtaanee lu jëm ci euh, Ngagne Demba Touré mi ñuy xibaar que ni moom mi ngi en exil fële ca euh, Mali réewu Mali la nekk moom loolu ñu xibaar que ni mi ngi en pour mën a continuer li nga xamante ni si moom mooy xeexam tranquillement beneen ponk bi bokk ci Ousmane Tounkara mi nga xamante ni si bu ñu sukkandikoo ci journal bii di Les Échos ñu bari dañu foog ni du l'Observateur du TFM du RFM waaye ñi ngi sukkandikoo ci journal bii di Les Échos moom moo ñu xibaar lu nu mel daan nañu Ousmane Tounkara jamono jile moom police bu états moo nekk di ko wër Euh, ñu jël mbokk mi asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di xaar. ñu delloo jaar bu baax sëñ bi. alhamdulilah waaw bëggoon a participer ci seen émission bi rek. Mhm, yow rek la ñuy déglu. waaw di wax ci mbirum Ngagne Demba rek jàmbaar dawul dafa wuti doole parce am na loo xamante ne bu la leeree dañ la nar a sacrifier ci yenn yi bon nga pour mieux sauter. waaw ah, mhm. parce que xam nga bon stratégie bi ñuy taxawal mooy lan ay état policier boo xamante ne ku wax dugg ci kaso bi ba dañuy fekk nit ñi sax seen biir kër def nga defuloo yaa xam seen yoon nekku ci ñoom dañuy ñëw rek jàpp la dugal ci biir kaso bi. Hmm. muy loo xam ne sénégalais yëpp ñaawlu nañ ko. xam parce que amul benn état boo xamante ne fii Sénégal mës na doxe nii Macky Sall di doxe parce que dafa ñaw ngay jàpp nit yi di leen réprimer yenn xam nga yoo xamante ne saa yi yoo xamante ne tegwul ci lenn lenn lenn te ñëpp nag même chose lañ leen di boole. di leen ko taxal même même chose lañ leen di taxal ñoom ñëpp bon beneen bi ñu top mooy waa observateur moom bon xam nga toog fii di expliqué naan dañuy wax dëgg ak waxuñu dëgg. dañuy xel xel du du observateur mais euh, école la les échos moo ñu xi lañ jëlee xibaar boobule mais du observateur. naam ok d' accord oh, hmm. merci kon baax na kon rectification bi merci bon ak euh, journal bu mu mën a doon daanaka Sénégal. boo hmm. xoolee journaliste yi léegi ñu honnêteté moo ko quoi. parce que patron de presse yëpp corrompre nañ leen ba nga xamante ne seen biir presse sax da ngay gis ne ñoom bu ñu toogee di wax sax da ngay xam ne ñii bon ils sont de l'autre camp quoi xam nga nekkuñu loo xamante ne dañuy wax ngir seen axulaay taala parce que seen biir poche la ñu bëgg a feesal moo tax ñuy wax te lépp lu ñu wax balaa ngoon booy démontrer ko. dooy dèjà ki ñu kàccal ne moom xam nga kooku dañ koy wër génne ci boppam ne man maa ngi nii toog xam nañ fi ma dëkk buñ ma doon wër kon donc dinañ ma seet ci fi ma dëkk. Hmm. beneen bi ci topp mooy xam nga Ousmane Sonko man vraiment bon <clears throat> li ma gis muy def nii man ànduma ci quoi waxoon naa ko te dama koy waxaat. grève de la faim bii muy def nii man ànduma ci bu fekkente ne dañ ko joxul lekku këram moo tax mu grève de la faim ok loolu c'est une xam nga beneen beneen affaire la quoi. mais bu fekkente ne moo jël décision di xeex mën nañ ko nangul nag ne moom moo jël décision pour xeex ak façon bi mu bëgg a xeexee mën nañ ko ko nangul mais kenn ku ci nekk nag am nga ci gis-gis man sama gis-gis nag mooy xam nga man nanguwuma xeex façon xeex bii muy xeex parce que Ousmane Sonko dafa war a maanaam xam ak lu mënti xew moom war na xam ne Afrique dañ ko soxla Sénégal dañ ko soxla bu fekkente ne nag moom xam nga jàpp na ne waa Sénégal xam nga jar na ko te Sénégal jaral na ko ko mën na dem ba sacrifier boppam ndax Sénégal ok loolu moom ñëpp xam nañ ne loolu Sénégal jaral na ko ndax lu ne def na ko lu ne sacrifier na ko boppam xam nga ànd ak ay traître yoo xamante ne dañoo ñëw mais yàlla day gën di leeral carte gi pour woon ko ne carrément xam nga fi nga tegoon sa tànk ak ña nga jàppoon ne ñooñu say xarit lañ wala say allié lañ wala ay nit la yoo xamante ne yéen a bokkoon di xeex benn xeex ñooñu ak yow bokku leen yoon. kon donc bu ko yàlla génnee ci nii te ñu ngi ñaan yàlla génnee ko ci ak jàmm moom dina gën a xamaat fi muy teg tànkam beneen bi ci topp mooy sénégalais yi tamit xam nga bon benn affaire dañu war a dañu seetaan ba mu ëpp dañu seetaan ba mu ëpp bon seetaan bi ñu seetaan nag bon xëj na kenn ku ci nekk xam nga am nga am nga am nga say raison pour wax ne man xam nga lii ak lii moo ma convaincre wala lii ak lii moo tax may xeex wala lii ak lii du tax ma génn xeex. kenn ku ci nekk am nga say raison quoi mais dafa am loo xamante ne daf ko waxoon nit ñi dañu war di fàttaliku ne moom dafa ne woon man dénkuma kenn sama bopp ku dul peuple sénégalais ah Sénégal jaral na ma lépp ba nga xamante ne xoolal bu jaree ma goxe sama bakkan sax dama koy joxe mais bis bu ma état jógee di jaay doole ne peuple bi taxaw peuple boobu nag dañoo gisatul kenn kenn koo xamante ne am na fitu sax toog di wax ak peuple boobu. Ah. muy ci nekkoon ci moom ñi àndoon ak moom ñi doon xeexandoo ak moom ñëpp a ci yem maa ngi brava ba maa ngi maa ngi jaajëfal a Bousso mi nga xamante ne c'est une lionne kooku moom ah vraiment taxawaayam Sénégal ñëpp ñëpp rafetlu nañ waaw te pourtant il n'est pas de Pastef il défend Ousmane Sonko xam nga. ba nga yaakaar ne kii Pastef la bokk parce que ay conviction am la ay ngëm-ngëmam la lu mu lu dëggu ci moom te boo déggee ni muy waxee nga xam ne kii li muy wax lu dëggu ci moom du tricheur te du ragal du dellu gannaaw du daw beneen bi ci des mooy muy troisième bi mooy man damay wax ci affaire immigration clandestine parce que immigration clandestine bi nga xamante ne moom la nit ñi jëlandoo kenn ku ci nekk di fàq di daw mais dafa am loo xamante ne gis nga maanaam suñu mbokku lébu yi dañoo war a xalaat benn affaire quoi parce que kenn waxu leen bu leen dem ok d'accord na mais géej gi risque bi ci nekk risque bi nekk ci biir géej gi ah, dem ci terrain bi xeex ak ñi leen teg li tax mënatu leen a am jën moo gën a yomb ngeen dugg ci géej gi di jaay seen bakkan loolu moom dama koy lancer suñu mbokku lébu yi ñu xam ko bis bu xeex amee wala nit ñi taxaw xam nga ñu gis injustice bu nit ñi di génn di xeex nañu génn parce que bu ñu duggee ci benn gaal à cent cinquante personnes bu dee dee am cent yëpp dinañ dee wala cinquante ya wala quatre vingt ya dañu nañ dañu dee te bu ñu taxawee ci biir terrain bi jàmmaarloo ak ñi leen di teg lii cent personnes du ci dee lu néew a ciy dee te bis bu ñu fi jëlee état boobu. ñoom li ñu soxla woon ci biir géej gi mooy licence li leen teg ñu am naqar bi ak nga xam ne mënatuñoo dem géej ba am li ñu soxla état bi la donc bu ñu taxawoon bàyyi géej gi ñuy dugg di sac di sacrifier seen bopp muy lan heure bu gaal duggee def cent personnes bu cent personnes yëpp deewul di nga gis ne soixante personnes yi dee nañ est-ce que gënte yomb avant soixante personnes di dee ñu taxaw bis bu xeex amee ñu jaamaarloog ñi leen teg lii ñu nekkee ba jële leen fi bu boobaa man damaa jàpp ne sama xalaatu bopp ñoom bu ñu taxawee di jaamaarloog ñooñu soixante yi dee ci géej gi bu ñu jaamaarloo soixante du dee ñaaray dee wala ñett benn bakkan bu dee sax ëpp na mais maanaam waxin la boo xamante ne maanaam bu soixante naroon a dee tey ñaar dee ñu defar ñu jaaree fa jëlaat suñu Sénégal xam nga defaraat suñu Sénégal moo gën a yomb lii ñuy def Mm-hmm. wax nag ak dégg quoi man ñi may waxal borom xel yi laay waxal waxuma ak ñi nga xamante ne seen bopp yi xam nga ndox newu ci quoi kenn waxul bu ñu dem ñun ñëpp ànd nañ ci ne képp ku dem ba gisatoo sa bopp sa réew ñu di la bundu xadaal di la xoñañal xam nga ba nga dem ba nga xam leen yow mii découragé nga définitivement sa xel ni muy nekk mooy gàddaay mais nag dafa am lu gën a yomb gàddaay bi ma terminé foofu mooy li gën a yomb gàddaay bi mooy cent personnes yi nar a sàmm ci biir géej gi ñëpp faatoondoo taxaw jaamaarloog ñi leen ko teg mu leer la ne bu ñëpp génnee bu xeex amee nañuy génn ñoom suñu mbokku lébu yi jëm ñëpp bu ñu génnandoowoon boole kook sénégalais yi génnandoo suñu mbokk ñëpp ñeneen ñëpp làkk yëpp nekk Sénégal ñu génnandoo danañ jaamaarloog ñi nga xamante ne ñoo leen teg métit bii ba nga xamante ne tey bu ñu taxawee maanaam bu saanaroon a dee ci géej gi bu ñu jaamaarloo juróom du dee te dinañ dem ba nanguwaat seen dëkk ñu dox ko teg ko ci loxo yu wóor yoo xamante ne licence de pêche yi ñu leen xañ danañ ko récupérer waat ñu amaat seen gée seen jën bu boobaa dootuñu soxla sax naan dañuy dem bitim réew salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jaajëfal ko bu baax kàddu yi na solo euh, rafetlu ko bu baax a baax mën ngeen def ni moom ngeen jaax ci numéro yooyu affiché ci baax d'écran bi euh, ngeen wax seen xalaat ak ban jàngat ngeen am ci euh, tolluwaayu réew mi Euh, ñuy waxtaanee euh, ponk bi njëkk bokk ci euh, ki nga xamante ni si buñ sukkandikoo ci moom mu xibaar ñu moom ngañ Demba Touré di ne dafa nekk jamono jëlee en exil fële ca réew Mali ngir rek mën a wëyal li nga xamante ne si mooy xeex bi nga xamante ni sumboon na ko Ngagne Demba Touré bokk ci ex parti boobu nga xamante ni moom mooy Pastef Ousmane Sonko daal di woon ko moom jamono jëlee ma nga ca réew Mali di jaajëfal sax moom ñi nga xamante ni moom mooy autorité malien autorité malienne yi nga xamante ni si permettre nañ ko mu séjourner foofu ca seen territoire boobule beneen ponk bi bu ñu sukkandikoo euh, ci euh, journal bi di Les Échos mu ñuy xibaar que ni euh, di Ousmane Tunkara jamono ji police bu États-Unis daf koy wër ngir rek ñu jàpp ni dafa bokk ci ki nga xamante ni si moom moo jiite woon na saccage yi amoon fële ca consulat bu Sénégal ba nekk foofu noonu ca États-Unis asalaamaaleykum mbokk mi. aleykum salaam aleykum salaam sëñ bi dégg naa bu baax li ngeen wax. Mhm. dégg naa question bi di rafetlu rek kontaan bu baax tamit si dugub mhm. bi. cest à Ah, ni ñu ko waxee rek mooy télé yi fu mu toll nii lu jot waaye jot lu neex waaye dagg dugal lu neex daa waaye dagg sànni waaye dëgg yi duñ ko wax ñu ngi koy nëbb luy yàq senegal mooy toog muy dox bi fu mu toll nii lu nekk ñu ngi koy gis nag mu ngi wëndeelu pour rek yàq xelu zone yi la may wax zone Sénégal bi ñu ren yow bañ a bàyyi lu lu ñu sànni rek ñu liir daal. waaw loolu sant ñu lii suñu waa ji nag ñu koy ñaanal yàlla mu yëkkati ko mu nekk si jàmm ba 2024 incha allah ñu jox ko réew bi ndax mooy suñu arrangement ñun nii bitim réew la ñu nekk lu ñoo bëgg lu am fii mu am si dëkk ba ñu koy dundee tubaab yi fii ñu koy dundee foofu tubaab bi du ñuy fekk si waaye ak lu fi ne système bi changé wul changé wul fii jàmm la ñu am ñu ne dañuy xëy dañuy liggéey fu mu toll nii si féeréer la ci ne xam nga si féeréer dañoo nekk ci féeréer di noppaliku. mais est-ce que morom bi am at yi ma am mu ngi Sénégal instant bi di férié du ko am ñu ngi sonn toog ci kolo kolo yi di naan ay kaas café di koy bokk système bi dafa war a jóge billaahi wasalaan ma sama xol dafa fees naqar nag la ñu nekk fii ñu si diaspora bi naqar lañ fi nekkee Sonko buñ ko kii moom xam naa ñu bëri dañu xor seen këyit tëdd di nelaw fii ndax fii moom jàmm nga fi am. Mhm. parce ay dëkk jaamu lu dëkk la ngay nekk si jaamu nga nekk sa biir dëkk mënoo faa am jaamu loolu la de waaw ñenn si jaamu ñun Sénégal yëpp. Mhm. Euh, jaajëfal ko bu baax kàddu yam na solo mun ngeen jaar ci numéro yooyu affiché ci baax d'écran bi euh, ngeen wax.